Contoh ngeureum ñal na len ami site internet RTV Dakar li gëna fess ci bopp xabar yi dañ koy doore kat yi nga xamantene ki di Cheikh Thioro Mbacké dal dina ko yëkëti mom nak lamu dal di xamlé moy juge bi di Mahane Diallo da ko dal di gàntal rek ngir mu mëna a gis eh, ki di Ousmane Sonko fa ca Cap Manuel mom Cheikh Thioro Mbacké bekk euh, responsable parti bi di Pastef ma ngay joxañ baaraamu tuuma doyen des juges mi nga xamantene rek dafa lank ba tëdd ci suuf ne du gis ki di Ousmane Sonko mom député bu tubaab bi nak mbir mu mel mi ko dal di xamné rek ci rencontre bi nga xamantene ne doon amal fofu ca Mbàkke ne na nag kii di Ousmane Sonko ba naga ni rek mënta fexe rek ba gis ko ginnaaw bu ñu ko placé su mandat du dépôt ba ni ndax dem na ca prison ba di ko seet lek waaye dañ ko dàq ay minti reprise jamono ji nag nga xamante ne rek moom moo ko lu nag ne na kii di juge d'instruction di Omar Mohan Diallo moom moo ko daal di def jamono ji nag dafa ñibbisiwaat gisul sax taqandeeru kii di Ousmane Sonko mu ngi koy naqarlu bu baax mbir mu nu mel ma ngi koy yëkkati rek ci rencontre bi nga xamante ne moom la doon amal foofu ca diwaan bu Mbàkke bu ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu rek wutali pouponnière carrière mandé bu Ndella Madior Diouf jamono ji ñuy wax ak yéen juróom-benn bébé rek daal dinañ cee ñàkk di ne daal jàpp nañ ne dëppawul ak yoon bu ñu sukkandikoo ci suñu natango yi l'observateur ñoom nag ñu daal di xam ne rek moo di affaire Ndella Madior Diouf jamono ji ab enquête bu sérieux nag lañ ci daal di ubbi ginnaaw bu ñu waxee ñaari bébé ñoo génn àdduna waaye nag ba ñu defee ab enquête jot nañoo enregistré ci lu toll ci juróom-benn tout tànk yoo xamante ne rek ñoom ñoo ñàkk euh, seen bakkan ba noppi rek ñu daal di leen enterré fi nga xamante ne rek moom mooy ca këram ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci sunu suñu nattangoy euh, l'observateur ki nga xamante ne nag moom mooy euh, Ndella Madior Diop si euh, diiru weeru octobre 2023 nag la bébé Jolenka ak Ndella Madior Diouf Akon Anta Sarr Bijou Ngoné Youssou Ndour Mouhamed Samba Ndiobène Ka ak Marema ma ñëpp rek si lañ ñàkk seen bakkan am na ci ñoo xamante ne nag ne nañ ci hôpital Albert Royal la ñu génnee àdduna ñeneen ñi nak ci hôpital Dalal Jamm ñeneen ñi ci SAMU municipal ak clinique Amitié waaye nag li mënti am rek sûreté urbaine ci jëm boppam nag daal dinay def boobu les naataangoy l'observateur ñoom nag ne nañ kii di Ndella Madior Diouf da doon signé ay acte yoo xamante nag ay acte de décès la jaarale ko nag ci structure bi ñu dëppee SOS santé waaye nag nekkoon ci turu yi ginnaaw bu ñu joxtoon ne nag dafa am foofu ab pouponnière boo xamante ne rek moom mi moom moo ko moom mu nekk ay lieux yoo xamante ne rek jamono ji policiers yi dem nañ fa waaye fekk ñu fa benn bébé euh, également aussi fekk ñu fa benn jigéen boo xamante ne rek dafa daal di wan lor du ñàkk dinañ ci xusandiwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teew lu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen info